man li ma bëgg mooy dëgg jib ak lu xew nanu fexe ba dëgg jib bu nu jël wax ji rek suul ka tuumaal nit mu weddi yëf yu yam fa yàgg nañu wax lu bari si mbir moomu kon jot na tey ñu leeral Sénégalais yi mbir moomu nan la demee obligation la si nga xamni ñoo obligation la si ki nga xamni dañ ko mbir mi mu ba mu mat ndax alalu nan man man na doon li a tanu man ka def yoon moko war man doxal plainte bu si porter plainte procureur ci bopam na ubbi enquête bopam su enquête bopam lepp dana lèr nu sét mom plainte loolu droit la procureur aussi droit la suñu procureur suñu tuddé mbir yu procureur daf ko war léral sénégalais yi man sama bëgg-bëgg yag ko wax sénégalais pouvoir ak opposition di wax di wax té li tax ñuy wax Sénégal Sénégal bu war tax